bio naturel mbokk yi seen jaaxle jeex ndax probio naturel daf leen indil ñaar ci de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi mala naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé, daf lay renforcer carrément ci walu sëy tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri tële de moom koy dégg rek probio naturel simpi bi nak bi tu moy toppatoo sen yaram ci walu yax Manam. Bolem lu ngeen amone ci ay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 touché kër yor a ngi toj bëri phénomène ba mel ni lu ma bu tas ey kër yor a ngi toj bëri phénomène ba mel ni lu ma bu tas ey yor doomam yi lay jaaxle naa de ay ponkal ne ci kër bañ a liggéey lànk bañ a xëy wax na ba salaam aleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. Ah, kan may gërëyee. Eh? man man maay gërëyee. yaay gërëyee. Eh? waaw. kii sama sët ya, hmm. ya, hmm. la. waaw. yaa ngi dégg. waaw. maay bàyyi ndayam. yaa ngi dégg. waaw waaw. door yi ngeen koy door nag tegu ko fenn. nii ngeen ko def dee nga ne jaaduwul. yow dañ na la jàngal ko métier waaye waxuñ la ay yaxam lañ la soxla mi ngi nii xam nga ni li tegu ko fenn. tegu ko fenn. man de amul xool muy jooy dara jooy gis na maamam day jooy. waaw mais kii day jàngi métier. ba ci lan. te kuy jàngi métier kay ay door ak yooyu munu see. <coughs> yaa ngi <coughs> tax nga ba sama tension bi yéegu. ah mais laal ma la <coughs> lan moo ma dal kay xam nga ah, sama tension. yàlla xam na ne su ma deewee nga torox. non du ma torox man soo dee yàlla laay desal man adduna bi yàlla kese moomu ci def ce na après noonu la demee histoire dafa la yor. billaahi su ma xamoon yow boo duggee nii nii ngay mel yow foofu damay toog sa kaw nga dee benn yoon doo ñëw ci àdduna bi doo xam ne àdduna saf. non doo yooyu doo xam. ba sonal ma doo ko mën a xam. parce que liir liir laay nekk liir liir du indi jikko liir mun na jooy nag mais mais du indi jikko. eh dama ni la. jëndoo leen ko juru leen ko jur dafa metti ëmb juróom-ñeenti weer nii ngeen ko def jàngi métier tax da koo tax da koo jar. waaw ak dóor ak yooyu ñoo ànd te ay yaxam la ma laaj. kan moo leen laaj ay yaxam. baaye moo ñu ko laaj. baayam moo ko moom ba leen laaj yaxam. ah waaw jàngi métier kay. wuy ma xaw ñu xaw nga xaw ma gërëyee nga xaw ma nga xaw ma loo doon. ah nii ngeen ko def nag na gëj tey na mucc tey. ah xanaa jàng jàng ay yow dal ak sa sikim bi ngay melni ni doomu lu ken mënut ta xam ni damaa wax ak yow. dama wax ak yow. kii mooy do a dóor ngay mel ni doomu tiñoris nii. maa la ëmb juróom-ñeenti weer fukkee ba ñëw xawna ray ken kenn fekku ma ci dina yekk doom ja mais bañu ko. na ne ñaare mois. maa la ëmb juróom ñent weer fukkee ba ñëw xawma ray rey. man de man man de loolu laa dëkk ci koñ bi ñu man quatre ans lañ ma ki parce que ama ama bo gàttee pour pour pour départ nga. nga mën a am doom day difficile. dama. exemple la wax wax wala yow. ko koy wax sama am gis nga xam nga lu ma gis nga mënoo dem ca mbedd ma fàttali leen na teeñu poqutaan ñëw ci kër gi gisuma sa baay dese yow ci àdduna ci kër gi boo dikkee normal fàtt mag tamit ma ko daw voilà bonne révélation dafa ñàkk mu nekk waaye dafa ñàkk jom. yow nga jur sa famille enfant deux. yow mi yaa ñàkk jom. yow mi yaa ñàkk jom amoo looy rus amoo looy bañ. liberté war daal mooy na jëkk tey na mujj tey duma fi ñëwaat yaa ngi da waaw loo leen ci góobee nag ma ko man may maamam dégg nga maa ci boppam eh daf leen dàgg merde xam fàccee la dara eh ma ne la bu ma neexee yàq bu ma neexee moom ngeen koy def man doole ma bu ma neexee yàq imbécile ngeen waay fàccee. buma fi ñewate la lay wax ni mu wax ma lenn loo ko def li nga xamne ne loo leen ma gat ko mu ñu naan la guerrier ay yaxam yaay kan nga ab tapet ñu naan guerrier fat sa waayow suma nexé leg mu ak sax kañ ñibi dama koy yóbbu day ñibi day liggey buma nexé mu ñibi buma nexé mu wàcc buma nexé mu wàcc nga ne waaw baax na war may seet way suma ma neexoon mu topp gis nga pa Yoro saw ni lim fi wax lépp deug la maa gëna xam li mu wax dëgg la dafa neexul tey gi nii chaque jour ñu ñëw attaqué ma may maslaa ak a neexam toj toj def ci mbedd mi xam naa ko naar bi mu wax ma naan koy naar beet naar mu tane naari xaataan xam naa naar bi xam naa lépp maa la jur maa la ëpp mu kay téeméeri junniyoon gën naa nekk nandite loo def xam naa ko ak Seydi dangaa war a jéem a changé xool na say nawle ñaari góor duñ laa jur nga juddu leen ñu ay góor du jullit altay ni nga ñak doom bay bëgg di dee hmm. dugal nañ ne école sa bay école bu gëna bax la lu dugal di la fayal ah nga lank nek fu ñuk daw jang bay metti mu ñu dugal nga lank bay fu metti mu anam top ci carte gi carte gi ngay def ak lepp nga lepp fa dugg fo génn xamna lam la man yow la am man nga wax la ngay sama màkkan ñofi ne waaw dama la doon laaj de xam am instant li nga wax nii ah, gis nga paa boobu noonu paa bi moom day kii day wër mbedd di fu wax di di sama der rek waaye man déwu ma carte ma ma la laa doyee carte. ñàkk a ñu naan ay gér yeeg nangam yow ngay ab tapet bu mag ay yaxam lañ ma laaj. imbécile xoolal dama leen di waxaat benn bu ma déggati mu ne xun wala mu ne xaa Samba soo ñëwaatee lu leen wax wax ma ko. waaw waaw ah, jamono wax day jeex. dara lan. yow moom xam nga lan la xaw ma looy mel ni pétax bu ndaw nii waxuma ak yow nag ak sa bu yàgg bi. Ah, demal rek mam ñu ngi tuub demal rek. eh guerrier. ma ne ñu ngi jégalu. ñu ngi jégalu ngeen wax kon jeex na jégal Samba. ku la wakkati waawa. bésin ngeen doon rek yor seen mbaar mi nga xamante ni dégg nga maam cëm yàgg Wah! ni ñu waay waay waay maam maam yaay maam. waay yéen eh, eh ah? may sot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 est ce que man def comme nit doomi nit ñu baax ni def ndax mën nga koo def jaaraata jaaraata sa question bi doomi nit ñu baax li def ndax mën nga koo def ah waaw waaw si ah, monsieur Dalal wax ni si seulement si a plus b égale à 2a 2ab plus b égale au carré trouvé woo ci dara non trouvé naa yi 6 plus 2 égale moyen dara nga ci trouvé wul xam nga lu bëgg trouvé ko mooy ak say ni nga carte gi bàyyi doom Yoro Sow mii ngay àndal. Hmm. ndax Yoro Sow yow bu boo bañu doomam moom mun laa bañ ah Yoro man maa moom benn affaire ndax moom doomam ku ci gën a yàqu nga ne kii moo raw ah? ah. léegi nag yow man man damaa wax. man damay damay joob yow yow bul bul jooy xaaral ah ma la man keroog joxuma bii bii deux mille sept cent. fa laa ko jëlee du damay liggéey. am na fu mu a damaa lijjanti rek business rek du ay naar du ay peer du ay dara dama mu liggéey après yàlla may ma ko mu ñëw jox la ko. kan la ngeen koy doon fii laay toog léegi ngeen mu liggéey ma xool liggéey jàngal leen ko ma xool liggéeyal ma xool liggéeyal leen liggéeyal ma tuuti. yaay yaay daw sa sikki mu mel doomu ni nii liggéeyal ma xool rabatel. dina ñu rabatel. parce que laal ko. Mbéchine maa ngi ñëw dem बाकी अल्लाह करे كان في فرق اخر درجه يقول في واحد واي واي واي واي naa la xamal leen gis nga bu fekkente ne xaalis 2000 yi ma may ca carte ba nga ko jëlee ñëw di ma ko jox naan ma mayoon naa la soo ma mayee te du ma ko jël ndaxte sa wax gii ndax yow yow fi mu toll dañuy wax yoroo sa mayoon naa ko 2000 ñu mën a tama yóbbu ma waaw waaw oro police du ñëw sax parce man man man ma de carte ma wallaay li ma bëgg daal lenn la su fekkee mën na ma damaa bëgg suba suba suba suba suba ma utal la liggéey nga dem di liggéey donte da ngay sax dem di jaay sax ngay wër di jaay te bàyyi mbedd yi ngay taxawal ak grand place yi ngay nekk. su ah. fekkee bëgg nga ma laax de wala maa ngi ñu nekk. ah bëgguma la mais je t'aime je t'aime léegi li nga wax loolu laay def euh, dinaa dinaa bàyyi affaire yi wax yëpp dinaa def sama fayda après euh, ma takk jabar su ma takkee jabar. Eh, bu defé fi ay 4 jours 5 jours mu ëmbal ko eh, mu am ñaari ñaar ñaar doom ben doom bi jigéen beneen bi am duma ma xam lan lay doon waaye yow la koy tuddé comprendre nga am problème lo lo lo yow sama sama sama nit nga dégg waaw su fekké da nga bëgg am jabar am doom ba tuddé mako wala ko tuddé ko sa bay di nga ah, ah waaw ma sama papa dé ma yow rek lay tuddé tuddé ma sama papa parce que je le connais pas eh, Awesome. ma waaw maam may jayi jayi mel ni ku màndi ni jayi jayi man ba may màndi booba xale lu tuut nga est-ce que sax juddu nga xam nga nag lu jot jot na ca gërye laa jóge kuy gërye ki yor sàmba ma yax mu naan ay yaxam lañ ma laaj kan moo ko laajee yaxam maam waxloo wuñ ko loolu dama ko yàq tey de monsieur Ba bañ wi ci tabbi daanu dee. lii la ñuy waxati. lu ne yàq naa ko ko. waa léegi. Hmm. d' accord nga bu subaa moo toll liggéey nga dem liggéey. ok ok waaw. d' accord nga bu ma teg gàcce. incha allah incha ndax fu may dem samay nawle laa fay fekk te damay wax ak teg lu leer naññi te bëgguma tey nga dem dem fa suba nga ñëwaat ci kër. waaw mère li ñuy wax ci jigéen ju gàtt day bëri wax kon dëgg la de. wax nga kay dëgg naa la jigéen ju gàtt ba ngay mbaptu mbapti laa xamal digëndu gatt gi mo lu jur lima la wax wax na la ko te duma ci deltu gan ginnaaw te li dess ci journée bi bëgguma nga génn kër gi demal nga dem ci boutique ba jël suukar ak warga nga ñëw tégal ma atay ma ki ci bi di noppalu sama garab bi lay naan te dama ndox waaw waaw tay la bëgg kër gi nak boko ko tay bo diké ma maa ira ira ira ira mar ma ma jigen ju gas man daf ma neera nga jur ma wallahi sama neewon kéré mo ma jur ma ma judd France wala ma jël wala ma juddoo Amérique man Sénégal barkaal man defuma fi dama fi jaar rek. ne man Medina laa juddoo yaa may dëgg. waaye sa giri bi amatul njëriñ fii la fi ay ndereng tey dóor. waaw bu ya, bu ma maam maam yaa ngi yow xam nga lan la. di wax nga ay ndereng ay dañ yow di ma wax di xam nga sa kanam gi yab la bo atam ne won Samba fe mu nek fi melni comme que nanguwu leen ko jëlal euh, refaar man ma dem refaar Ya, wa deglu ma deglu ma léegi waaw déglu ma ba mu pare lii la wax di. bëri sen fi sët bëri na fi sët yu te yow am nga ci part de responsable. est ce que géré ay yaxam lañ laaj Samba ne ko ay yax. sama baay loolu la ko wax sama papa loolu la ko wax ay yaxam la ko laaj budul dul. ooy maam gis nga moo ko sàkk bay jël ay yaxam. so tut duñu dimbali. ngir yàq ay kan moy gërë yow léegi nga bu yàqoo ñu ngi koy baye eh, xam. yow xam waa yow ñett yoon ah. gën a tapper gu lewet gi dégg nga maam muy liisal jóge wat sikkim di defa yow bu la yaakaaroon ci ñàkk fayda mu taxaw naa waaye koy jaar waaye sant yàlla demoo leen ba ma dem sant ba kenn mësuma fekk kenn mësula fekk yow da ngay duul say morom yaa ci gën a yées dem tukki ñaat at douze ans am ko amooy kayit ñëw di lappi-lappi ci kër gi waaye xam xam waaw na mujj tey ngay dem ci atelier sàmm di fa man mën naa jël sama responsabilité. guerrier dootu ko def. guerrier de dootu ko def. léegi man su ma may dem fu ma jógee naa jaar ci guerrier. kan gi laa ko noq fëgg ko ko. mbooloo mépp génn ma ne ko nag baal Samba. loo ko dóoree. Kan bi laa ko dóor. ak ban loxo kan bi laa ko dóor. ak ban loxo. ah yow xam mu naa ban loxo. alma kan bi. alma kan bi joxuma la sama kan alma kan bi waaye demal booy dem sa dem rek. alma kan bi. am kaan. troisième tànk doxal doxal. jox ma sama kan joxuma la. jox ma sama kan jox ma sama kaan.

يبان جتبوجي ياو كم ما دبل كم اسمه بيت نعم نعم شارك لينغ شارك نيكان خمول فيشون غشارك كان خمول لالا من تالا سكوا على قلوب بس أوه ما بخيفه دول من أنا هو ما بس شو نعرف سكوا على قلوب بس تالي يبدي أخو من أنا إيه نعم نعم شانغ مهل ياو نعم سام بدوركو منو نيرة وانديكي دومي حرام لا نيرك نياب خونا ميرك لا غنا بنتي ياجين ياجين